kay mooy que tey président Macky mu ngi teg ay dogal yoo xam ne li ñu gis ah li ñu lii li ñu jàng respecté wul li nga xam ne mooy loi et règlement yi tënk institution yooyu parce que boo jëlee ki nga xam ne tabb na ko nekkoon juge constitutionnel parce que li loi bi wax ci juge constitutionnel il faut que moom mu démissionné moom ci boppam mooy jël dogal démissionné walla mu am lu ko jàpp loo xam ne mënatul dem c'est-à-dire que invalidité physique wala mentale et cetera donc mënoo ñëw yooyu te tant que sa mandat jeexul kenn mënu la yëkkati mais li nga gis tey mooy que président Macky Sall li ñu constaté aussi peut tombe tombé mooy waral ak gaffe ñoom Sénat jël nañ décision boo xam ne ça va à l'encontre ci li nga xam ne peut-être ñoom moom lañ yaakaaroon parce que Sénat dafa génn ne ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko nañ ko jox ay fiches te ñun jàpp nañ ne. tey waruñu woon a wàccee noonu ñu ko wàccee Sénat parce que ñu bëri seen mandat jeexagul te tant que seen mandat bien que président mooy def décret mais ci texte bi dafa leer ne tant que ñoom amuñu volonté bind ne dañuy démissionner wala ñoom seen bopp amul lu leen frappé ba mënatuñu def liggéey bi mooy incapacité invalidité kenn mënu leen teggi mais li ñu gis mooy que président moo jël dogal teggi leen ci loo xam ne saafon dafa àndulax li nga xam ne mooy mooy mooy li loi bi wax ci tëgginu sena parce que Sénat ni ko tëggee article 7 bi boo ko jëlee boobu la ñu aussi ci code électoral lu indi naa ko article 10 ñëpp ñoo xam ne dañu laale ci ay élection bokk ci organisation balaa ngeen leen di tabb dañuy toog lu minimum cinq ans avant ñu leen di tabb ci kuréel yu mel ni sena et que li ñu gis tey mooy Silla ba mu fa yóbbu pour ñu mën a bokk ci Sénat pour ñu mën leen boole. Mhm. ci Sénat parce que ñoom en mooy les préfets les gouverneurs et cetera. parce que ñoom en réalité dañu bokk ci ñii di organiser élection. Mhm. et cetera dañu am lu bëri loo xam ne dañ ko xam. Mhm. te nit koo xam ne aussi jàpp nañ ne tey dafa am péete am far. neutrul mënul bokk Sénat. te boo leen gisee ku mel ni Cheikh Awa Balla kooku en 2019 moo créé li nga xam ne mooy mouvement TGV. di jàppale président Macky la fële ca Guédiawaye te kooku tey dugal nañ ko ci Sénat bi. muy doon yoo xam ne vraiment dafay dafay dafay réeral nit ñi te xel dafay jaxasoo ci ñoo xam ne tey ñoo war a organiser élection yoo xam ne demaguñu ci mais problème yi bari na ci. Mm-hmm. te nag président Macky Sall c'est le président de tous les Sénégalais teg na acte noble acte fort boo xam ne. loo ko contre contre da nga koy saluer mooy que jël na décision boo xam ne muy troisième mandat du ko def et permettre ñu vérifier li nga xam ne mooy ñaari mandat ba nga xam ne Sénégal problème boobu duñ ci dellusi maintenant euh, li mu waroon mooy nekk aussi au-dessus de la mêlée mooy que looy jël rek na doon loo xam ne ñëpp koy applaudir pour que demin bi gën a rafet parce que Sénégal aussi ñoo ko bokk te gëm naa ne tey dun na président dafa juum mais tey mu ngi forcé di def yoo xam ne tey il veut imposer son candidat Amadou Ba et loolu yaakaar na ne du du lu yoon d'accord mm-hmm. euh,